corniche ban ci. ok euh, en fait euh, maanaam situation euh, travaux bi indi woon na ay coow ndax dañ koy dañuy continuer travaux yi wala dañ koy arrêté donc fi mu ne ni fan nañ ci toll exactement. bon fii fii daal travaux yi fi am mooy travaux route yi ngay wax bon travaux route yi fi nekk moo di ne boo mooy ñun ñun mooy li ñu woowee 30 bi xam nga dafa am benn corniche boo xam ne moo ceinture dëkk bi boo ko boo ko génnee amaan beneen boo xam ne dafa ceinture dëkk bi boobu nag moom la ñu tëli actuellement nii. suuf la woon dañ koy tëli mbedd 30 la ñun mbedd 30 lañ koy wooyee ñu ngi koy actuellement ñu ngi koy tëli projet bi man na euh, man na 12 milliards et quelques hmm, xaalis bari la ñu ngi koy ñu ngi koy tëli aujourd'hui les travaux sont en cours xaj na booy booy liggéey liggéey toon noonu ci nawet mu du ñàkk ay désagréments yoo xam ne moo ci jóge mais travaux yi dañ koy continuer parce que balaa déwee na tëli bi dana àgg nga xam ne bu déwee na encore loolu dafay ñëw dolli ci réseau routier bi nga xamante ni moo nekk ci moo nekk dëkk bi euh, financement banque islamique de développement la état état Sénégal moo ko fi def donc président moo ko fi defal sëriñ bi ñu ngi ko jël travaux yooyu si en cours mosuñ ko arrêté. ok xam naa noonu ma dugal question wàllu assainissement bi euh, à Touba souvent dañuy xaw a jànkonteel tamit ak lu jëm ci inondation bi. Mm-hmm. donc euh, ren lan mooy état ci situation boobu. Euh, état bi xaw naa xaw naa doy waar parce que ren kër yu bari ñu ngi ci ndox depuis cinq ñu ngi alerté pour wax ak nit ñi donc ren ñu ngi ci ndox ndox mi xaw na fee xaw na fee bari ñu ngi nag ñu ngi def li ñu man taalibe ñi ngi def lu ñu man a travers Touba ci kanam état bi Ageroute mi ngi fi eh, ONAS mi ngi fi mais li nga xam ne mooy ay besoin d'assainissement ki dëkk bi moo bari assainissement Touba am na benn spécialiste bu xam di ci liggéey nee na ma yéesu cent milliards pour mu defaru loolu nag mënu su ko defar ci mel ni at mënu su ko defar ci ñaari at waaye li ñuy def nii baax na at mu nekk kenn ku ne def ci la nga xamante ne bii moom la moom la man Euh, état prévoir na def ci déwén vingt trois milliards yoo xam ne mu ñu fekk si li ñu fi doon def Touba ci kanam am na def na un milliard cinq cent ren du ñàkk déwén itam dana woote waat defaat du toll noonu wala xam ne lu koy ëppalee noonu bu ñu en tout cas ren bi ñu jël lii bu ñu ko jëlee fii ak euh, fukki at affaire assainissement moom kenn dootu ko wax ci dëkk bi mais nekkul loo xam ne kenn mën na ko lijjanti ci temps boo xam ne temps bu xat lay doon dafa laaj des investissements lourds dafa laaj également une certaine ci ci liggéey bi moo tax aussi faw nag ñu ànd ak patience doyloo ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk di ci liggéey ak ñi nga xam ne ñoom ñooy volontaire aussi également di def seen ñax ak seen doole te jàpp ne xañ na fi ak fi ak juróomi jàpp fukki at problème assainissement dana dana jeex mais ñu ñu rappelé ne bari na barab yoo xam ne dadaa am ay problème te amatu ko am nay jamono bu mosaan taw jumaa gi doo fi dugg am na at moo xam ne eh, ci ci ci année 2000 yi jumaa gi dafa inondé am na fi fi la fekk. donc jumaa gi da daa coupé complètement du reste de la ville nga daal dem ñaari étage doo fa jaar fii fi tolloog bu ñëwee 28 daawoo fi jaar fii rek boo génnee kër gi suñ digg ak ak ak sëñ Abdou Lahad digg ko sëñ Abdou Lahad kër sëñ Fallou daawoo fi yooyu yëpp tey un nekkatul problème ça veut dire que ñu ngi koy solutionner ndànk-ndànk. Hmm. mais mais sëñ bi ci côté boobu noonu euh, dañuy wax à chaque fois chaque année ñuy gis euh, problème bi muy problème mu bi côté jumaa ji wax nga ko léegi am na ay euh, réalisation yoo xam ni am am na ci ba loolu amatu fi mais tey nee ñu sax Touba rek doomu Touba yi taalibe yi ak ñi fi dëkk ak taalibe ñi nekk feneen ak feneen buñ ci jugoon benn at problème assainissement dootul amati. Touba non bu ñu bu ñu bu ñu waxee noonu. buñ ci ay ay wax yi ñii ñuy wax la buñ ci xol dama dama lay wax rek man euh, man je a lucide quelle que soit la situation. Hmm? parce que aussi loolu mooy sama rôle dama dala la cent milliards moo koy defar. cent milliards du xaalis bu ndaw ko ne loo man rek na nga ci def su ma sañoon ñu dugg ci noonu mais buñ ci duggee neen dañ am déception te loolu baaxut cent milliards mooy defar assainissement dëkk bi loolu du loolu du benn dërëm du ñaar dërëm du ñetti dërëm kon ba pare aussi dëkk bi dafa am yeneen priorité parce que tey sëñ bi université mooy priorité am donc mënuñu bàyyi lépp aussi jëmale jëm jëm ci assainissement dëkk bi dëkk bi am na yeneen priorité parce que pendant que ñu war defar assainissement bi dañu war defar université bi dañu war defar les hôpitaux dañu war defar les routes xam nga donc dañu war defar euh, l'éducation defar leneen defar defar defar leneen donc société bi noonu lay doxee kon li am solo moo ne ñu am un plan boo xam ne dañuy dañuy planifier les actions yi nga xam ne moom lañ ciy def les investissements yi nga xam ne moo ciy def waaw à moyen terme tey mën nañ ne d'ici cinq ans bëgg duñ dëkk bi inondé daal le même temps aussi ñu ne d'ici deux ans université bi na noppi en même temps ñu ne aussi d'ici deux ans euh, hôpitaux hôpitaux bu mag bi ngi defar Touba na pare bañ defaat fi yeneen ñett wala yeneen juróomi centre de santé noonu ñu ñuy développé dëkk parce que développement dafay global doo jël benn benn aspect rek bàyyi yeneen yi moo tax nañ ci nañ ci teey demee ci euh, demee ci pas-pas ak étude ak xam-xam ak xarañte bu ko defee rek suñu borom danañu dimbali mais c'est sûr que d'ici cinq ans bu yàlla dimbali assainissement mën naa jeex ci dëkk bi. inondation euh, leneen leneen li nga xamante ni tamit euh, gis nañ ko fan yi ñu génn muy loo xam ne lu ñëpp saluer la muy euh, safinatul amaan ñu def leen tey comme ni ñu ko tuddee polisu Touba ba am na loo xam ne